ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor les minutes de l'info. salaamaaleykum suñu mbokk internet su Dakar Net dañu kontaan bu baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd yéen ànd bi ngeen di ànd ak ñun seen émission gise ak dafay ñëwaat gise ak nag toujours dafay faral di waxtaane actualité waaye tey dañoo am exclusivité ki nga xamante ni ñu baree bari ñu ngi doon laajte naan fan la nekk enfin Dakar Net indi na leen ko fi nga xamante ni wala sax seet na ko ci biir këram ngir séq ak moom waxtaan Ouzin ngeen di àndal ci eh, waxtaan bi. Euh, Kounkandé maa ngi lay ziar di la nuyu bàyyi laa nga nuyu mbokk internet yi Dakar Net. alhamdulilahi rabil aalamiin bismillahi rahmaani rahiim alhamdulilahi rabil aalamiin arrahmaani rahiim maaliki yawmi ddiin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdina siraatal mustaqiima siraatal laziina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim wa lad-daalliin aamiin allahuma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati wal yaxutati almutaxaqiqati alhaidati fi markazi alfumi walmahani allahuma salli wa sallim ala ayni alxaqi allati tatajalla minha xuruj alxaqaahiqi allahuma salli wa sallim ala talxati alxaq bilxaqi kanzi alahzami ifadatika minka ilayka ihadati nuuri almutalsami salallahu taala alayhi wa ala alihi salatan tuxarifuna biha yow gannaaw bu ñu jullee ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi ak mbooleemu koo xam ne maanaam tey yaa ngi yore xam-xamu cosaan moo xam xam-xamu aada la koo xam ne da ngaa yor wàllu tuur wàllu xamb ak li nga xam ne tey mooy wàllu pouvoir waaw kon ubbil nañ leen buntu pays yàlla yi kon ñu ngi déglu incha allah ko ci question yi si kàttanu yàlla bisimilah. alors question bi ñu njëkk bi ñu njëkk laaj mooy euh, Kounkandé dañu la gëj a gis. waaw sëriñ bi nga ñu waaye ñu ngi may gis bu baax a baax ndax bi may jógee Côte d'Ivoire def Bénin def euh, commencé yi Ghana ñibbi si waat Sénégal bi ma ñëwee site bi njëkk a mooy Improd yaakaar naa ne def naa fa interview bi ma fa jógee ma dem si DJ Boub ITV boo ma fa jógee ma dem Seneweb at soxna bu ñuy wax maanaam Zeyna sama émission bu mujj bi nag mooy 221 people at dakaar instant dem naa ñëw Soumbédioune que dafa amoon ay naafeq yoo xam dañ ne woon ne Koukandé daa daw du dugaat Sénégal mu ñëwee yaakaar naa ne ak léegi trois mois def naa fi cinq émission kon maanaam dawut ma laqatuwut ma te la ma newoon ba léegi maa ngi ci yaakaar naa ne Sénégal fii nii ay borom xam-xam ñoo fi ne ci ñu may déglu xam nañ ne Koukandé am na xam am na lu si lu mu toog tey réew mi adduna bi cinq continents yëpp kenn du laam-laamee Koukandé ñëpp xam nañ ko sànq yi ngeen si mbedd bi ñëpp ku ne daf may ñëw fekk toog di di ñaanlu bëgg a foto yàlla nag bu mayee doomu aadama tur soit borom xam-xam la wala mu nekk koo xam na maanaam tey xam na lu yàlla moo jaalee si moom mu nekk benn missionnaire si kaw suuf si loolu laa bëgg mu leer si noppi jaamu yàlla yi yaa ngi dégg ñu may déglu nag ñu bari xam nañ ne ñun si luñ newoon nëbbatuñ ci bi ngeen ñëwee gis ngeen jàmm laa ngeen ma fekk sama kër. te xamee ngeen salon bi fii laa woon damay xar géej gi xamee ngeen ko fi ma toogoon na nële kon yaakaar naa ne kuy làqatu du ñëwaat ba dugg biir këram di def ay émission ma la mais projet boobu fu mu toll da nga ko renoncé wala. très bien projet boobu dañ ko reporté woon parce que dafa ay kilifa yoo xam ne maanaam si wala état bi lañ ne ñoo ñaan ñu reporté ko yaa ngi dégg suñu waxtu suñu avocat yi nag dem nañu waxtaan si at kilifa yooyu moo tax ñu reporté ko moo tax gisoo coow li coow lay doon rek mujjuwut fenn. yëgoon naa si nag kunkaan naa dañ ko war a jàpp mu dem kaso nangam nangam waaye gis nga bi ma jógee d'Ivoire ba léegi def na trois mois ma si réew mi ama problème benn justice te incha allah si kàttanu yàlla kilifa yooyu nag nekk si état bi la ñuy xaar ñu jox ñu ndigal rek ñu def li ñu war a def xam-xam baa ngi fi secret baa fi balaa ngeen dem woon leen xam-xam bi secret bi voilà. alors euh, euh, li ñu bëgg a laaj tamit mooy comme ñëpp xam nañu macha allah dangay faral di wax si mbir yi nga xamante ni ñëwagul élection locale li ñuy njëkkee ban gis-gis nga am ci élection locale yi di ñëw parce que say naataango yu bari nee nañ deret ji dina tuuru ñenn ñi dina bëri ay moor loolu yow ban loo ci gis si mbir mi. waaw effectivement loolu maa ko njëkk wax bi ma jógee Côte d'Ivoire xam nga sëriñ ñu bëri maanaam dañuy wujjante dañuy xaar ba sëriñ bi génn rek sëriñ mag bi génn rek ñu jaar si ay tànkam pour wax bi ma jógee Côte d'Ivoire nee naa yi am na ay féticheurs yu benn noo Camerounais yëpp léegi Sénégalais ay féticheurs lañ di. léegi nag féticheur yaa ngi fi nag léegi nag yónni nañ ay jinne yoo xam ne ay jinne shayatin la ñu dugg doomu aadama yi pour ñu tuurante ay dàmm tuurante deret waaye alhamdulilahi rabbil alamin nag bi nga xam ne majesté ñëw na boo dem pouvoir kuy oote woo pouvoir fii si Afrique noire yor pouvoir bu ma yéem man man pouvoir boo xalaat Gambada Sakpata Mignona yaa ngi dégg façon pouvoir boo xalaat si Afrique noire bi gars yi xam nañ ne man yor naa ko kon mën naa lu ne yaa ngi dégg barki Demba Ndiaye gis nga rek pouvoir bi ma defar ba pare enterré ko sulli ko dekkil ko jox ko cigarette muy tox kon yaakaar naa ne man du ma moromu féticheur yi fii ne di bandi bandi fii Sénégal Sénégal amul féticheur benn féticheur moo fi ne léegi nag turante dàmm yooyu nga xam ne maanaam ñiy liggéey xaalamul jinni shayatin yi def nañ ko jiitu naa leen bu baax bu yàgg si wàllu pouvoir parce que bi ma ñëwee dem naa Soumbédioune ut naa ñetti gàtt ut naa benn béy bu ñuul at benn nag bu ñuul at benn xar bu weex ma tuural ko maanaam samay pouvoir yëpp yaa ngi dégg buñ paree maanaam ma defaral leen ay sarax yoo xam ne maanaam kon sénégalais yi incha allah dinañ am si jàmm dinañ dund si jàmm. pour jàmm réew mi daal moo la tax a loolu. teel nga xam ne du tàkk. du la du tàkk waaw jaase du jóg fetal du jóg. te am na ay doomi réew ñu bëri ñoo xam ne maanaam defar naa leen si wàllu futulu fetal ak tulu jaase ngemm naa leen ba nga xam ne tey. ay politiciens ay autorités politiques autorité autorités yi ne si si nguur gi ak ñoo xam ne maanaam ay garde corps la ñoo xam ne ñoo yore euh, politiciens yi. ku si ne ngemm naa la pour lan pour bañ rek maanaam dara tuuru. opposition wala am na ñuy ñëw di ma teewal. opposition pouvoir dañuy ñëw soxla gàllaaj ma yëkkati jox leen parce que bu njëkk bu xare daan am da ngay gis maanaam politiciens dañuy dem maanaam si doomi daara yi. kilifa diine di la laaj seen xam-xamu yi nga xam ne maanaam deret du tuuru man nag sama maam ñu yoroon tuuru fetal yi ak tuuru jaase moom dafa génne woon xam-xamam joxe ko gratuitement nag kon loolu benn siru la boo xam ne maa ko doon fii mim réew parce que ñun ay doomu sud Sénégal lañ Casamance ñun ñoo xam loolu keneen ku fi ne di ko fi ote woo rek da dem si ñun ñu jox la ko waaye xam-xam boo xam ne maanaam tey li xaar doomu aadama ñoo si toog ak luy samp doomu aadama dogumal mais comme yow doomu Casamance donc mën nañ jort ni di nga jàppal tànk ki nga xamante ne Ousmane Sonko ngir mu euh, nekk si jàmm wala sax nginoo mu daal di remporter li nga xamante ni mooy élection locale yi coalition bi waaw danañ ko jàppale suñu doomi Casamance gannaaw bu toppee si ndigal si liñ koy wax parce que ñun ay kilifaam lañ dëgg la nag maanaam autorité la ay politique waaye ñun ay kilifaam lañ parce que Sonko suñu koy ñaanal bu baax ñun suñu waa gox yi si lañ bokk moo prix njiitu réew mi fi toog nii parce que njiitu réew dafa fonk waa Madina Gunaas waa Kolda da fonk kon yaakaar naa ne ñun ay kilifa lañ ci réew mi kon bu ñu dégloo ñu wax ko maanaam nu muy doxee mu changé ko mu déglu suñuy ndigal yàlla mun na koo may bu ko deful nag am na benn gone goo xam ne gis naa bidiyum bi fenk na est ngi dégg gone googu mi ngi fi ñu bëri ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax yaa ngi dégg mooy Pape Diop. gars yi nañ ko bàyyi xel ancien maire de Dakar. mag la de Pape Diop wala mag Konkane nga naan ko booy waaw gone man ñëp ay gone lañ ci man xam lu tax loolu sëñ bi te nag laaj na laaj am solo dafa jaaxal ñëpp lu tax mën naa ñi ñuy gone. waaw Konkane dafa yore maanaam jëmmi xale. waaye man màggat laa mag laa ndax man yor naa maanaam am naa 900 ans. yow Konkane am nga 900 ans. 900 ans parce que sama tajliyaat bu njëkk man jinne laa woon boo xam ne jinne bu màggat laa woon. ma def tasrufaat nekk doomu aadama nekk nit nekk jeune ñëw si biir réew mi mii réew Sénégal. kon yow sànq bi ñuy ànd ngay dawal sa oto ma toog sa wet kon yow man jinne laa toogaloon muy dawal. très bien. parce que yaa ngi dégg. voilà parce que xolol lu mel ni événement xar géej gi ni ma yëngalee àdduna bi loolu xam nga ne maanaam nitu simple mënu ko laaj nañu waxante dëgg yow jàng nga yaa ngi dégg kon man ku ma xool xam dëgg-dëgg ne maanaam am na lu nekk ci man. waaye nag coow li bari na lool léegi nag ñu talatuñ coow dañuy liggéey yaa ngi dëkk léegi nag li may conseil maanaam opposant bi at maanaam ñi nga xam ne ñoo toog ci pouvoir bi yaa ngi dégg élection mitin yi mi ngi waaj a ñëw jox leen leen autorisation ñu yor nga ñi xam dañoo am permis cordama état bi nangu ne seen permis parce que ray bi la ñuy bañ ngir yàlla dama leen di ñaan yéen yéen autorités yi nañ ut ay bodyguard yoo xam ne am nañ professionnel yi ci liggéey bi ñoo xam ne jaar nañ Krav Maga parce que man booy garde corps yi ma gis nii booy si bëri defuñu formation yaa ngi dégg par rapport ak ñun ñi nga xam ne fu ñu jaar ak formation yi ñu def parce que ku kande koowal xam ne am na fu mu jaar man def naa protection rapprochée non non bu leen tudd turu ñooñu yaa ngi dégg mais autorité bu dul autorité jinne ana naa ak yow yor sa kaaraange moo xam international moo xam fu ne waaye loolu xeesu nañ ko. ñu ngi si mission wu yàlla ci ci lañ ne dañ ñoo dénk kon dañuy watal mission boobu léegi nag maanaam tey ñu ma leen dénk ñoom mooy lan mitin yi dañu wut ay éléments yu doo ñu teg leen fa aussi tam ñu wut ay force de l'ordre ñoo xam ne maanaam ay police wala gendarme teg leen foofu nga xam ne doo am débord loolu laay conseillé ñëpp li ko dalee dakaar ba Sangalkam li ko dalee maanaam si région yi ñëpp loolu laa leen ñaax jàmm am ñu ñu def si jàmm élection yi ñu jàll si yàlla ku mu war a fal parce que ñu biddi yu ma la Pape Diop Abdoulaye Diop Sarr yaa ngi dégg mais. Macky Sall gisuma ko foofu parce que élection locale yi ala kulli haalin moom foo ko Macky Sall koy gañe waaw. ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér wóor les minutes de l'info.